wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi niñ ko baaxoo doon def rek bi weer wi teroo ba nag ni xam ngeen noo ngi fii ci këru Laylatul Qadr gi ci jëmm ju tedd ji nga xam ne tey moom la ñuy xoolee soxna Maymuna Mbakke Xaadim Rasul muy Sëriñ Mouhamadou Mahfous dayre yi di bàyyi ko fenn fu nekk ñëw di indi seen liggéey ci kanam Sëriñ Mouhamadou Mahfous ci Touba Asalem ci kër gi nga xam ne soxna Maymuna moo ko liggéeyoon tudde ko këru Laylatul ba ci atam mujj yi fi nekk yëpp fii la nekkoon. bi mu fi bàyyi ko nag bàyyi fi jëmm ji nga xam ne mooy sëriñ Mahamadul Mahfous Mbacké moo waral tey dayre yi nga xam ne bàyyi ko nañ fenn fu nekk ñëw fi dayre bii nag bàyyi ko daarul minam pet daarul nam pet nag bu fa ab dayre bàyyi ko ñëw kër soxna may muuna ñëw ci jëmm ju tedd ji sëriñ Mahamadul Mahfous mi toogee jotaayam war na ndax ku ne xamoon na diggante soxna may muuna ak daarul minam pet xamoon diggante soxna may muuna ak kër Serigne Cheikh Awa Balla kon yaakaar naa daarul minam peet bu nu ñëwee ñëw nañ fi nu war a ñëw ñëw nañ seen kër sëriñ Abdoulaye Thiam mi nga xamee nag moog bokk yi ñu àndal ñoo jiite daayira bi doon andi sëriñ liggéey doon ko andil sëriñ Mouhamadou Mahfous mi nga xam ne tey moo fi toogal soxna Maymuna Xaadim Rasul doon andi sëriñ liggéey ngir mu tàbbale leen ko ci bis bi nga xam ne moo nekk sunu kanam muy bis bi la doon xadara kon ñun ñëpp dañuy déglu sëriñ Abdoulaye Thiam mi nga xam ne moo bàyyi ko Daaru Minam Pet ak bokk yi ma àndal ak daayira bi nga xam ne moom la ñu andil sëriñ bi. ñu leen di siyaar leen ñu ci tur sëñ Mouhamadou Mahfous Mbacké min yaakaar di daayira nun daayira Daaru Minam Pet nag noo ñëw fii tey doon joxe sunu sunub liggéey tàmbale ci Mbàkke Ndaw ak naa ak Modou Fos Touré moom sëñ Góora Touré waaw léegi nag bi ñëwee gone yi ñu waroon na àndal daayira bi lépp sax ak seeguñu ñi ñi dañoo xaw a féete ci daayira Cheikh euh, euh, Daruwaab léegi nag loolu loola taxoon sax ñu xaar leen yónnee nañ jébbale ñun sunu saas waaw ñoo ngi sant te di leen gërëm te ñaan sëñ bi taxawaayam yàgg fi ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak soxna mi mi liggéeyal liggéey bi yàgg ci loxoom nu yàgg ko fee fekk te sama borom defee nu liggéey ba nangu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ne bu xëyee dana xëy si dikk ànd ak ñun liggéey bi waaye mi ngi fegoog léegi jën jëm joo xam ne it ñëpp ràññeeku nañ taxawaayam ci kër Seexaw Balla muy Sëriñ Papa Diop mii moom it léegi la indi ab liggéeyam ci kanam sëriñ Serigne Mouhamadou Mahfouz moom it di borom taxawaay bu yaatu Serigne bi sëñ Pape Diop mi di sunu dëkkandoo ñu bokk kër Cheikh Awa Balla waaye liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko tey muy kenn koo xamante ni bi taxawaayam ci yoon wi taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci njabootu Serigne Touba gi rawatina nag fii nga xam ne tey mooy kër Cheikh Awa Balla kon bu dikkee indiwaat ab liggéeyam fekk ñu fi danañ la ko seereel ci taxawaayam eh, bu ko defee kon alaaji sëñ Mbaye Dieng dañ lay bàyyi rek dayra bi nga xam ne ma bàyyi ko Daaru Minam Pet kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko muy njabootu sëriñ bi di taalibey sëriñ bi eh, kenn ku nekk xam soxna may muuna ni mu meloon ci leen xadar ñoom it ñu dajale seen i addiye foofee ci dara mi nam pet nuyu ñëpp ci kàddu sunu kilifa di sëriñ Mouhamadul Mahfous Mbacké moom soxna may moom Xaadimu Rasuul moom sëriñ Cheikh Balla moom borom Daaru Musi maanaam nuyoo bi it mooy sëriñ baa ngi sant ñëpp ndax woote bii day woote soxna may muuna te moo di laylatul xadar di bisam di yëngoom ci ak dundam mu nekk maanaam bi fi bàyyi ko mu dénk ko sëñ bi na ko su ma sañoon du ma wutal benn bis loolu laylatul xadar lu ñu may defal lañ ma ko ci defal ba noonu la ko sëñ bi jàppee sëñ bi it di ko woote taalibe yëpp di ko wuyu si taalibe yi foofu taalibe maa nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ci bari ñëw nañu te ñu ñëw ko ngi leen di séntu ndax soxna May moo toll woon noonu ci ñoom ndax sëñ Bamba sëriñ Mourou ma ko toll noonu ci ñoom ndax soxna May ak Seex Balla kon bu loolu amee daayira yi ñëw président daayira yëpp ñëw nañ fi manam toli àllarba yi di ñëw lolu mo waral tay sëriñ Ablaye jammi bayiko daru ko minam pet jiti tolu àllarba ba fa nek ànd koog bokk talibem yëpp ñu ngi ni fi kanam sëriñ bi boole jëf ak yene ak bëgg sëriñ bi ak déglu ndigal kon sëriñ Ablaye Thiam sëriñ baa ngi lay nuyu yaag wa daru minam pet yëpp te xamne daru daaru minam ak daru waab ak yebal ak mbajaan fo yëpp ben gox la te fenn fu ye siaball def na fa lo xamante bi ba dëtu kenn du ko fàtte njabootam rek nekkal ko fa loolu waral bi ngeen bàyyi ko daaru minam ñëw fekk sëriñ bi fii mu toog sëriñ bi xelam dal na lool waaye xolam sedd na guy ndax nee na lépp lu sëriñ Cheikh Balla daan digal seen i bàyyi mu di ko def ñooñoo ne day la ñu nekkoon ci positif ba ngeen jëndu ca ca ëpp ñu am ak bëgg gu am ak jëf ju daan jëf ci ngeen jur waaye yéen a koy jëf loolu waa toolu àll bii sëñ bi ne yàlla suñ taa faj seen aajo faj aajo yu taalibe yëpp te sama borom yàggal fi sëriñ bi suñ kanam nekk ci am te yàgg koo liggéeyal te wéy ndigal ginnaaw loolu sëriñ baa ngi leen dénk ngeen sax ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey ndax sëriñ bi nee na jaamu yàlla mooy tax a dem àjjana te nangoo liggéey mooy tax a teel jàdduna kon nag na ngeen boole nangoo liggéey ak jaamu yàlla ak jaa eh, way ci ndigal te xam ne bu ngeen ko defee fo ngeen nekk maa nga fa lu ngeen nekk maa nga ca incha allah dinañ leen dimbali saa ak bari sëñ Mourou Mamour Touré Mourou Mahfos Touré ak Mourou Mahfos Ndaw ñoom it ñu ngi ci jataay bi an ak ah Ndaw ñoom ak ñi ma limut maanaam ñi ñoo teew waaye ñi ña dikk ñoo leen dikkaale sëñ baa ngi sant ñëpp diggam ndax moom Abdoulaye kii Diop moom ngay wax léegi euh, Papa Diop léegi lañ fi jébal seen daayira mu ànd ko ak Maysa Dieng may seen président daayira ak euh, Pape Diallo euh, ñoom ñëpp daal def nañ fi jëf ji ma sëkk te wax ko sëñ bi jëf ko ci kanam sëñ bi léegi lañ Pape Diop wax ak man ak seriñ bi kon nag moom fekk ngeen ko fi fekkaat fi nag taalibe yëpp kon tey daal sëñ Ablaye Thiam sëñ baa di nuyu daal di leen gërëm di leen xamal ne lu ngeen nekk teg ëllëg na seen xel tax ne day leen jàppale saayir jàppale leen ci baat yi jëf. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci weer wu tedd wi di sant yàlla bu baax a baax ci jataay yi nga xam ñi ngi ko am ci séentu guddi gu tedd gi di guddi gi laylatul xadar di ñaanal jëmm ju tedd ji di seex Mamadul Mahfuus yàlla na fi yàlla gën a te yàlla dolli ko wér dolli ko kàttan te dolli ko defal kaaraange ak sayar baatin ba yéene ji nga xam ni woy juróom yi amoon nañ ko daan mu daa ko ànd ak ñoom ba mu noppali a gis ak magam ju baax ji di soxna Bali yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi ba mottali seen i yéene e, nu toogook moom nag ci jamono yiñ toll ci daayira yi nga xam ni dañoo am yitte lool ci jàpp ci liggéey bi waxtu wu ne fu ne ay daayira di bàyyi ko muy fii ci biir réew mi ba ci bitim réew fii ñuy waxee nii am na daayira boo xam ni ki ko jiite sëriñ bu liggéey ñoom nanga nekk ci réewum Argentine mu mel ni nekk fa ak bokki taalibe yi ci des ñu ànd ak seen pëstéef ak seen jom ak seenu taalibe di bàyyi xel waxtu wu ne sëriñ bi ak liggéey bi ak bis bi ñu dajale seen addiyee jox ko ko mu ñëw di ko indi ngir di ko ñu tàbbal ko ci biir liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu laytu xadar di ko jébbal jëmm ju tedd ji di seex Muhammadul Mahfous moom soxna Maymunatu Mbàkke mi nga xam ni moo taxawaloon guddi gi daan ko ànd ak ñoom ba ñu noppi koo gis yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi te gën koo saxal te gën koo dëgëral bi jaay seexu naa seemul xaddim sëriñ bi nee na sëñ daam mu ngi leen di sant bu baax mi ngi leen di gërëm ci seeni taxawaay te soo su su yàlla dogalee nga delluwaat it ca mbooloo ma nanga nga ko jotal ay cantam ak i ngërëmam ci ñoom ak i ñaanam xam ne gis na liggéey bi gis na seeni taxawaay gis na seeni pëstéef ndax sëriñ bi dara wax ni jige ju sori ak sori ju jige jige ju sori mooy ki sori lool ci réew mi waaye nag waxtoom xelam ak xolam yëpp mi ngi fii ci jëmmi sëriñ Tuubaa ak njabootu sëriñ Tuubaa kooku mooy sori ju jige jige ju jige nag mooy ñi nga xam ne daayira yi nga xas mi ñoo dëkk ci dëkk bi ak dëkk yi ko wër ba noppi te seen xel ak seen xol yëpp. ñu jëmbat ko mu jëmale ci sëriñ bi mooy jige ju jige kon yéen sori ju jige ngeen yàlla na yàlla defal leen tawféex ak ndimmal ba liggéey ba gën a yaatu xéewal yi gën a yaatu sëriñ bi ne mi ngi leen ko ñaanal bu baax a baax di leen dénkit fu ngeen mën a ne ngeen fa yéenee sax ci ak njub ndax Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh naa Cheikh Mamadou Khadim daana wax ne sama kok ku ne jub rek ma ca doy kon nee na mi ngi leen di dénk ngeen gën a sax ci njub lu ngeen sori sori xamal ne maanaam waxtu wu ne bu seen xel jóg ci seen jëmm yi nga xam ne ñu leen di digal di leen teg ci yoon wi bu seen xel jóg ci ci ci loolee bu seen xol jóg ci loole xam naa lu ñu leen di soññee la nag waaye nag bu fekkonte ne loolu amul kon nii ngeen def dajale seen i addiyee di ko di ko di ko indi jóge ba Argentine di ko indi bi loolu kon mel na ni loolu ab soññee la bu ñu leen di soññi kon nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ngeen gën a am ndimbal ak tawféex te guddi gi itam liñ ciy séentu Sëriñ Tuubaa di ko ci ñaan waxtu wu ne yàlla nañ ñu ci defal lu fa suñu jot. yàlla nañ ci dajeeg lu fawqa sunu jot te ñu di leen ñaanal ñoom ñii di sunuy kilifa yàlla gën leen fee bàyyi te gën leen a saxal te gën leen dëgëral te gën a mottali yéene bi jaay seexu naa si amadul xaddim noo ngi jéggalu kàddu yu baax a baax lu ci jub ci sëriñ bi joxe woon ndigalul nu wax ko lu ci dëng ci nun ñii la dënge wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci kontaan ndax nun ñuy laaj nooy xam mbégteel nit ñi ndax nit boo ko laajum jox la rek ak cawarte tàbbi na ci kon nag yaakaar ju am soxna ci soxna may teg nañ ko ci sa loxo mbàkke yaakaar ju am ci sëriñ Touba teg nañ ko ci sa loxo Mbàkke ak Seexa Balla mi tax nu ñëw fi wax lu nu am ci kër gi sëriñ Seexa Balla moo nu ko may kon boo toogee tey sunu sëriñu sëriñ kon Mbàkke dañ lay ñaanal gudd fan ak wér ndax sunu borom dogal nu ci toog ñëpp noo bokk Seexa Balla dellu bokkaat fa nu bokke waaye lépp nu boole lépp di yëbbal ko sëriñ Touba di ko sant yàlla ak yonent bi waaye nañ ñu yaanal yaa may géey nag taxawaay yàgg ci loxo ndax fee mu ne moo faati gaas ca daaru ma naan moom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ man maa nga Mbàkke Kajoor di ñoddi waaye ñoom jàmbaar lañ nañ ñu ñaanal suñuy xol gën a jàpp jaxasoo suñuy xool gën a ànd lépp di Serigne baax noonu nag fas na yéen sëñ Bamba doon faaw ndax lu ngeen dig la def te du ngeen nu fekk ci li ñu tere jërë ngeen jëf. jërëjëf kàddu yi. barakato ginnaaw bi ñu bàyyi ko ci dayri bi nga xam ne ñoo bàyyi ko Daaru Minam ci njiital soxna May Diop moom Serigne Daaru Diop ci Daaru Wahab noo ngi toog ak dayra Daaru Manaan Touba di dayra bi nga xam ne Serigne Jaga Fall moom seex Cheikh Mahamadul Mahfous moo ko jiite muy dayra boo xam ne dayra bu xam kër gi la dayra boo xam ne yaakaar naa ku xam kër sëñ Mourou Mahfous xam nga ko seen taxawaay waaye liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci laylatul xadar ak lu dul laylatul xadar waxtu wu ne lépp loo xamante ne bii bis la boo xam ne xew na ci kër gi rek ñu def sa seen yitte def sa seen yëngu ak liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la moo waral nag tey jii ñu indi seen liggéey te lu jiitu indi liggéey bi boobu ba nag ni ñu ngi ci kër gi ànd ak taalibe yi ak dongay laxasaay yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey moo xam xéewal yi nga xam ne gan ñi fi ñëw ñu ngi leen koy eh, defaral ñu ànd ko ak ñoom di ko liggéey waaye tey nag mbooloo mépp ñu bokk ci daayira bi dajawaat seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey diggante daaw ak ren ngir jëmale ko ci bis bi nga xam ne moom bisu Laylatul xadar ñu andil ko jëmm ji todd yi nga xam ne moo toogal tey soxna Maymuna di Cheikh Mouhamadou Mahfous Mbacké fii ci Touba aslem ci kër gi nga xam ne soxna Maymuna moo ko rëddaloon boppam liggéey ko ba mu yegg atam yu mujj mu nekk fii tuddee ko kërug Laylatul xadar di kër goo xam ne kër gu fonk la njabootu sëñ Touba gépp fekk ko fii Cheikh Mouhamadou Mahfous mi nga xam ne tak tey moo toogee ab jataayam bokki taalibe yi ak njabootu sëñ Fallou gi léegi lañ fi jóge sëñ Aliou Mbacké moo waral bi ngeen ñëwee léegi bi ngeen toogee fi toogaay bi xaw a yàgg sëriñ Aliou Mbacké di ab jarbaat ci moom di doomi Cheikh Mahmoudou Fadil moo fi ñëwoon léegi ànd ak mbooloo mu bari moom it ko ca njabootu Cheikh Mahmoudou Fadal moo waral bi ngeen fi nekkee sëriñ bi ne ci biir moo tax nag ñu bëgg ànd ak yéen déglu kaddu yi nga xam ne bàyyikoo na ci sëriñ Njaga mi nga xam ne mooy seen jëwriñ eh, mu yëkkati ay kaddoom su noppee nag ñu soog jox kaddu yi nga xam ne moo war a bàyyikoo ci sëriñ bi bàyyikoo ci njaboot gi nga xam ne ñoo nekk rawatina nag ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi nga xam ne liggéey bi bi ñu dooree màggal gi ba nëga ni muy bi weeru koor bi teroo ba nëga ñoom ñëpp dañoo bàyyi lu ñu jàppoon ñëw ci kanam sëriñ bi bàyyi Cheikh Awa Balla mi ab taawam ba ci sëriñ Xaadim ak sëriñ Moustapha ak sëriñ ñoom ak sëriñ Fàllu ñoom ñëpp kenn desut ba ci gi ñoom ñëpp ñëw ànd ak li nga xamante ne bi mooy wàccaayu màggal gi mu war a suba ngeen ne démb amal nañ fi conférence bu am solo boo xam ne Baye Cheikh Awa Balla moo xam ne thème bu am solo la xam nañ ne thème boobu wala waxtaan woowu mën nañ koo jëriñoo waat ren ba déwén ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yàggal fi sëriñ bi ngeen yàgg fi ñu yàgg fee fekk liggéey bi ngeen koy liggéey ñu ñaan suñu borom subhanahu wa mu jottale ko soxna may muuna yàlla yokk ay leeram soxna bari kon ñu ànd déggu sëriñ Daga Fall diin iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم شيخ محمد المحفوظ مباكي sey taalibe ñoo ngi lay nuyu di daayira bi nga xam ni mooy daayira bi mag ci Touba di daayira Saadatul Daarayni Touba Daarul Wahab te ma jiite ko nga def ma man dekk seen jëwriñ man tant ak i ngërëm rekk lay amil daayira bi waaye Mor Faye mooy ki nga xam ne moo amee waxtaan wi ak seex Gueye dafa fekk nag nit su ñu la jiitalee ci mbooloo su mbooloo ma teewee ca kala boole woon ak ñoom te ñu mat sëkk topp war nga ko wax ni ñi nga ma boole lan seenu toppe rafet na sëriñ Modou waa daayira bi maa ngi leen di sant sant koo xam ne am na tàmbali walla waaye amul fa mu yam ba nga leen waxee ne leen mooy seen jawriñ kenn xoolul fu may dugal dërëm kenn xoolul lu may def lu ma leen wax ni leen nala rek ñoom ñëpp ànd nañ ci ne ma noona la ñu nekk nag ay jàmbaar nekk nit ñoo xam ne ñu ñu la bëgg a lañu doon ñoo xam ne ñi seen guddi ak seen bëccëg ñu ngi ko def ci guddi laylatul xadar gàmmu Daaru Wahab muy ñaari bis yi nga am suñu jógee gàmmu Daaru Wahab dimanche ji ci jëkk la ñuy commencé waajal laylatul xadar suñu jógee laylatul xadar dimanche jëcc jëkk la ñuy waajal gàmm loolu mooy liggéey yëpp daayira bii nga xay na mooy daayira Sahadatou Darayni Touba Darou Wahab amuñu beneen liggéey ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk sunu borom dinu dimbali nuy taxawal daayira bi ba egsi fii tey nu jël jaayante ak soxna may waañ waañ woowu nu jaayante ak soxna may ren la ci ñetti at wala ñeenti at waaye benn buñ ci tàmbali wan nekk na ñaar ba ca topp nekk na ñett kon man na ne tey dikk na ma ci ñeent sëriñ Moodu waañ woowu damay ñaan nga ñaanal nu ba nu commencé fii ci kër gii di tibbaate ba dem jumaa ja ba dem ca barabu soxna may ba ak i dab sunu yéene ak sunu pas-pas ak sunu bëgg-bëgg mooy waañ woowu danoo bëgg di ci togg ba fépp foo xëy ni ci Touba ay ñam war na faa dem nu yóbbul ko fa soxna may loolu mooy sunu pas-pas te loolu la ñuy liggéeyal te duñu ko boole ak dara daayira bi nga xam ne nag saa su moom lañ lay jébbal saa bu noppee dana toog fii ci sa kanam jébbal ko waaye bëgg nañu it nga ñaanal nu ci waañ woo wunul xam ne dañu koy jaayante ak soxna May na mu jaayante woon ak Serigne Touba baayam ba di ko liggéeyal jaare ko ci Serigne Fallou pas-pas boobu la nu bëgg mu nekk ci sunuy xol nu jàppe ko ko jaayante ak soxna May na nga ci dimbali bu baax xam naa kon temps bi laay bañ mu sori te ñu war a wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sëriñ bi maa ngi sant waa daayira bu wér a wér a wér nañ ci man bu wér fakkas taluñu ma lijjanti wuñu lenn lu may def lu ma leen ni leen sëriñ bi noonu la noona la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala samiil alim min aseytaan rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jël nuyoo boobu di ko jébbal suñu bunt ci Serigne Touba Khadim Rasoul muy Cheikh Mamadou Mahfous yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ak njaboot ak soxna may Maymuna gi nekk ci ginnaawam yëpp yàlla yàggal leen fi wéral leen fi ñu yàgg li leen fekk si ci bis bii. ñuy am mbégte nag ci teewaat fii ci kanamam nin ko daa teewee ci at mu nekk mbégte mi ci ñuy ñaan itam mu gën a doon mbégte mu gën a fulandiku waaye mu doon mbégte moo xam ne ni ñu ci béggee yàlla na soxna may munatu Mbàkke bintu Xaadim Rasul béggee ci nun noonu ak Cheikh Mamadul Mahfous mii fii sëriñ Makhtar Fall Ndiaga bàyyee daanaka am foofu lay tàmbalee ndax sant mënta weesu sant sant na daayira bu baax waaye itam ñiy gën a gaaral sëriñ bi rek ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci kër laytul xadar gii nun day daayira bi danoo jàpp ne képp koo xam ne nii yaa ngi yëngatu lu jëm si ci daayira bi nun nga ciy dimbale kon nun ñoo ñu ngay dimbale nun ñoo ñu ñuy dimbale nag nun jàpp nañ ne ñoo war a yaatal ñëpp ñoo dala ñoo war a dalal ñëpp ñoo war a bokk ak ñëpp lépp ba tax na sëriñ bi dañuy ñaan nga ñaanal nu ci jëmmi sëriñ Touba Xaadim Rasul waaye jëmmi soxna Maymunatu Mbàkke sa wayjur wu tedd wu sell woowee nga ñaanal lu ba lépp lu waay di yëngutoo ci biir kër gi lu jëm ci wàllu ñam jaayanteeg soxna may bi maanaam euh, euh, ñoo la koy jox ñu def ko mas nan la fi wax fii ne la danoo bëgg nga ñaanal nu ba lépp loo xam ne nii lu ñuy warate def la fii ci biir kër gi dootuñu la ci laajati dara loola nag yaakaar naa ne am nañ ci xel mu dal jàpp nañ ne ñaan nga nangu na ndax ren jii démb sukk naa fii ci sa kanam xamal la fi liggéey bi tàmbalee ba fan yem wax la ne la jàpp naa ne day ren de bu fekkente ne lenn la ñuy sàkku ci yow lu jëm ci ci ci ca waañ wa defe naa ne diwlin lay doon te loolu sax ba ma la waxee loolu ne ñoo ngi dem nag liggéeyuwaat waaye bu ñu demee fu mu toll ñu yëgalaat la ko waaye jàpp na ne diwlin jooju Mbàkke yaakaar naa ne boo gisee ñeneen ñu ko gën a yittewoo ci biir kër gi ñooñu mën na ko yitte woon ndax defe naa ne jaayante bi law na ba far teqaale diwlin jooju ñu doon wax kon jàpp na ne daayira bi ci jaayante gi jaayante nag soxna may ba xam naa ne yaakaar naa ne ñoo ngi sàkku ci yow buñ fi jógee nga dem xool liggéey ba kon du jar ñu koy tudd fii ndax day wàllu média te itam sàkkuwunu mu àgg fenn fi ndax dañuy doog a tàmbali te doog tàmbali googu ñuy doog a tàmbali nag dañuy ñaan nga ñaanal lu mu sax ba nga xam ne nii lépp loo xamante ne Euh, euh, laytul xadar ñëw na fu fi kër euh, Serigne Touba nekk am lu bàyyi ko fii dem foofa te jaayanteeg soxna May def ko muy sa waa daayira sa daayira ni bii ñu xam ne nag daayira bii seen ab liggéey yoruñu bool di dugg ci ay mbedd yoruñu ay gafaka di dugg ci ay mbedd di yelwaan say taalubéy bopp du ay soppe du dara say taalubéy bopp lépp ñoo ko jaayante di ko liggéey kon ñu xam ne sëriñ bi euh, taalibe yi bëgg nañ la taalibe yi bëgg nañ daayira bi waaye taalibe yi bëgg nañ laylatul xadar ba fu fi waay man di nekk sam la muy njëkk a nekk mooy bu ne nisu saabaan teru na rek la ngay njëkk a wax mooy na leen gën a laxasaa euh, feddliwaat laxasaa yi gën a góorgóorluwaat ndax kat suñu bis a ngi ñëw muy laytul xadar te boobu sax koori koor gi du teroogul kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mi ngi koy bàyyi xel noonu mu koy bàyyi xel nag ñoo ngi lay ñaan nga bàyyil nu xel noonu mbàkke ba lépp lu ñu séem àggale ko ci ci ci sa barke ndax fii ñu toog nii di wax jàpp na ne daayira yëpp lañ fi toogal ndax daayira bii ci sa loxo lu tedd lii yaa ko bindoon tuddee ko saadatu daara yi ni wax ne képp ku ci jàpp lu mu jàpp dinaa ci jàpp ba mu taxaw kon loolu itam ñu xam ne ñu ngi koy ndamoo bu baax ndax yaakaar naa ne képp ku bokk ci daayira Daaraéni bii yaakaar naa ne maanaam kenn du la gis di la yërëm fu fi waay toll bu la séenee jàpp na ne àddina ak li ci biir yaa ngi moom te lépp nag sagoo la ak ndamoo la ak liggéeyal la loolu moo na ko may kon ñoo ngi ñaan euh, fu ñu fi mën di toll liggéey bi itam yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla buñ ci gis suñu bopp lépp fu ñu toll itam nan jàpp ne euh, jógaguñu bu dee danoo jógan tax ñaanal ku ñaanal ñaan gu wér leen bëgg ku ko ñaanal ndax lii ñuy liggéey dañoo bëgg mu jëm kanam mais bëgguñu mu arrière bëgguñu koo def tey ëllëgee si biir ñu ne kat benn nag lañ am eh, bu ëllëgee si biir ñu ne nun kat amul wenn lu matu nag loola fas yéenewuñu ko ndax li ma wax rek maanaam lenn lu ciy njëstal yoon amul ñoo ngi jégalu bu baax nag sax ci tànk yi la lay yëkkati ba fii ñoo ngi koy jégalu bu baax di jégalu waa leen mbooleem koo xam ne nii nekk na fi ñoo ngi koy jégalu waa leen sa tànk yi ak ngay dox ak ak ak maa ko waat ci jëmmi Seexal Xaddim du dellu gannaaw mukk feek sama rongo fi ah, li ciy dolliku li ciy dolliku waaw may ma tuuti li ciy dolliku mooy daayira Madiyana dañu ànd ab liggéey ci gannaaw bu ñu jébbalee seen daayira nu jébbale dañoo dellu siwaat bokk ak noonu waañ mel na ne daayira bi nga xam ne daam jeeg ñoom ak euh, mutloom ñoo ko jiite woon te tey muudu siise ñoom nekk ci daaw ñoo àndan fii ci roq bii ren jiit noo àndaat am nañu itam lu ñu yëkkati seenu ñaq dugal ko ci guddi laylatul xadar gii di so waajo soxna may wi se kii mii wax naa ko ko mañang ne ko waañ wi du pour daayira bi kese danoo bëgg mboolem koo xam ne dangaa yaakaar sëriñ bi sunu jébbalee ba noppi kenn ku ne jaayante ci aw ñaqam nu dugal ko ci waañ wi ba waañ wi bëgg mu yegg fa sunu borom dimbali nu ci barki sëriñ Muudu ba waañ we yegg fa euh, ma ci profité di sant daayira bi jigéen ñii sëñ Moodu jigéen ñii ma àndal seeni borom kër boole ma ak ñoom jigéen ñu jàmbaar lañu xamuñu guddi na xamuñu bëccëg na biñ fi joge ci biig fajar jot na te fi la ñu yanduwaat te la ñu fas yéene nekk ba ajuma cangoon ba nga yéwénu amuñu dara lu nuy def lu liggéeyal la sant naa leen ñoom itam bu baax ni ma sant góor ñi waaye nag jigéen ñee moom Mbàkke na nga leen gën a ñaanal ñu am pas-pas lañu kon daal Mbàkke waañ waañ ngi nii waañ wi lan la indi waañ wi lanu bëgg mu jëm ca kanam ndax nun ci suñu jëmm moom addiyee yin lay indil ala kulu alinu di ko di ko indi waaye waañ wi nag bëgg nga jàppal nu ci ba ni ma la ko waxee rek nuy tibaatee fii bay dem ca barabam ba di fa yóbbu ay ñam ak kër yi diine yëpp ba ñu xam ne soxna may yayoo na lii li nga xam ne laylatul xadar daal ni la wëree ni leen bëgg ñam bi wëree ko maanaam fii ci biir dëkk bi moom ci waañ bi loolu no moo tax dañu indi la fi bëgg noo nga fàgg ngi nuyu sëriñ bi ci turu mbooloo mi nga xam ne moom la ñu àndal ci njiitul sëriñ Modou Mahfous Mbacké moom sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëñ Fallou nga xam ne mooy suñuy jawriñ ak sëriñ Mourou Mahfous Bousso moom sëriñ Abdou Samad Bousso ak sëriñ Mourou Mahfous Mbacké moom sëriñ Maam Thierno Mbacké ak sëriñ Mourou Mahfous Mbacké moom sëriñ Ateex ak Serigne mourou Mahfous mbake mom Serigne mourou Mokhtar nga xamne ño warona bok jotaay bi waye ité mo len teunk ba mu ñu ñu fekk jotaay bi waye ñun ak ñom serigne bi ño bok and liggey bi ñi la ko séré bu baax di xamal ne kat ah sa turando yaangi ni nang nanga ñu ko waxee woon nag na ngeen ci jiital sama doomi bop yi sama doomi traite yi ñom ñoy suñu kilifa ci daayira bi seen digël itam ci lañuy dox lepp lo xamne luñu digël itam ci daayira bi lool rek non la daayira bi dox ban bañ ci fi tay di ñaan nag nga ñaanal nu Mbàkke ba daayira bi sut mbolam daayira bu ñuy dégg ndax xamna ne bis bi kat lepp lu ci war ñun la war te li nga xam andi nañ ko ci àdd yi nañ ko lool itam dañu bëgg dem ba di jital ay gétt di ko ndifi lepp lu war ci bis bi ñu xam ci si ne ñun ñun ñun turon sa turandoo yi bop yi ñun la war kon lool mbàkke ñi ngi la koy séral di ñaan nga ñaanal ci bu baaxa baax di ñaan suñu borom yagal la fi bu baax guddal saw fan bu baaxa baax ba naal yi nga xam ne naal nga ko ngir liggéeyal ko sa way juree muy soxna may Mbàkke ak sëriñ Seexu Balla nga yeggale ko Mbàkke nanga ko bëggee suñu borom bàyyi la fu baax bàyyi la fi lu baree baree bari bari kenn fekk ko nuyu ñëpp kon kàddu yi xam naa ne du gudd sëñ bi dana woon naa ko jottale kàddu yi ci turam laa ko jottalee ak turam mboole mbooloo mi nu àndal ñëpp sëñ bi di la xam ne daal ñu ngi sa ginnaaw laxasaayu ah doon ah, say say soldaar lépp loo xam ne daal yég nañ ko ci liggéey bu jëm ci kër gi moom mbay nga xam ne ñun ñoo ci jiitu ñoo ci jiitu Mbacke ñu ngi lay siyaar baax na baax na jërëjëf kàddu yu rek la ngi leen di nuyuwaat lu bari ci turu soxna Daba Bousso moom sëñ Ousmane Bousso ci daayira bi nga xam ne moom lañ baaxoo at mu ne di ko indi fii ci sunu sëriñ sëñ Moudou Mahfous Mbacke di daayira boo am solo boo xam ne sëriñ Abdou Samad Bousso moo ko tuddee woon ma faatixul Bisri ci kanamam it lañ ko amale woon muy daayira boo xam ne daayira bu fonkoon la. daayira bo xamne ne daayira boo xam Nokolol daayira boo xam ne yitteel na ko Serigne Abdou Samad Bousso te ci sama kanamit eh, ci lañ ko amale won muy daayira bo xamne daf ko fonk lol mom Serigne Abdou Samad Bousso te ñor ko eh, serigne Abdou serigne soxna Daba Bousso nak moom itam suñu kilifa itam bi ñor nako ñor go xamne sa suñ bisub laylatul khatri gi man mi lay joxan digal ñu wajalat diwen kon moom itam ñoo ngi ko ci ñaanal bu baax a baax suñ borom yàggal ko lool te may ko fan wu gudd suñu sëriñ bi nga xam ne sëñ Abdou Samad Bousso it moo ñu boole woon muy sëñ Modou moom itam ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko lool yàggal ko fi lool tam ànd ak kattan ak wér ndax day la boo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñoo ko séq ak ñoom fonk nañ ko tey jàpp nañ ko te xam nañ li nga xam ne moom la ñuy jariñ ñi ngi ciy nuyu nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi nekk ak Gédé ñi ciy jiite tudd ko mel ni Soxna Xadi Lay moom itam bis bi ñor nako ko lool ak yeneen mbokk soxna yo xamne ne su bis bi agsee señ bi ñëw la koy seereel gedda lañu ñu nekk ay jigen yu am pësteef lañ ñu mën ci tuddu soxna Xadi Lay moom itam kuy jàpp ci bis bi la kon tay dama koy tuddaale bu baax baax nga oh, oh, di la ko seereel ndax man maa maay ànd ak ñom di liggéey kon nak ma ngi sakku ci yow itam nga ñaan leen ko ñaan leen ñom itam suñu borom yagal leen fa ndax bis bi ñor na leen ndax man mi nga xamne ne maay ànd ak ñom loolu wër na mëna ñor na leen kon dal ñoo ngi ñaan ci dërëje yi sëriñ euh, Abdou Samad Bousso ak dërëje yi sëñ Modou Mahfous bis bi yalla nañ ko yàgg téwé tam ànd ak wér ak jaam ak salaam te yàgg fi fekk sunu sëriñ bi ndax daal ñoo koy ñaan ñaanal sëriñ bi di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ne daal ñoom lañ àndal ci liggéey bi sant na bu baax a baax nag jërëjëf bi nee na mi ngi leen di ñaanal ngeen yàgg fee ñëw te yàgg ko fee fekk liggéey bi it yal na ko yàlla nangu soxna may mu ne mi nga xam ne moom ngeen koy defalit yal na ko nangu te colère gi suñu borom sàmm ko ba yéen a ji sëñ Abdou Samad bu sa amoon ci laylatul xadara yàlla ma leen kàttan ngeen ko defee kon ñu déglu àllaaji sëriñ Baye Dieng ko defee mu yëkkati kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci yéen yi yéen bokki teel bi noo ngi nuyu ñëpp ci ndigal suñu kilifa di sëriñ Mouhamadul Mahfous Mbacké moom soxna may moom ma sol sëriñ bi mi ngi nuyu ñoboot ak sëñ Abdou Samad Bousso tàmbalee ko ci sëñ Abo ma nekk ca bopp ba ak rakkam yëpp ndax sëñ Abdou Samad moom si millions yi bokk nekk ko ay xarit jaxasoo lool bëgg ci lool te loolu sëñ Mourou Mahfous mi seere la ci ndax kii sëñ bi la ko tuddee te ña nga xam ne ñoo di ay magam yëpp

ba tuddee ko sëñ Mourou Maxus mi ànd koog doomam yëpp ànd koog jobadam gi ak taalib bi kon sëñ Mourou Kara noo ngi lay see yóbbante boo demee nga sosal sëñ bi sëñ Mamadan ak ay rakkam yëpp ak njabootu sëñ Abdou Bousso jërë ngeen jëf yu rafet weesuwut toroxlu tabe ma mën a joxe sa alal ci ngir jëmmi suñu borom ànd nekk benn ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom doo tooñ waaye ku la tooñ nga jéggal ko kon loolu mooy al sëriñ Mohamed sëriñ bi nee na war ngeen a sant yàlla bu baax ndax ginnaaw da ngeen a ñëw di siyaar ci bis bi di jébbale seen addiya yu jëm ci bis bu màgg bii nga xam ne moom lañ dagmal nee ngeen ñëw yam ci mbokkum boppam mii di sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëñ mu daaw balla ndax ne ndax waajuram yi ko jur mook soxna xari seeni baay bokk benn baay ndax nee na nijaayam waajuram yi ko jur moom moom ñoo bokk ndey ak baay soxna Asta Sill mi waajuram nee na soxna Asta Sill mi nga xam ne mooy waajuram ak soxna xari Sill mi nga xam ne mooy waajuru soxna may muuna seen ñaari bay ñoo bok ben bay suñ xarim waye nak ñu bok te ben bay yàlla defut sëriñ bi neena yàlla def liñu ñuy taamu ci doomi soxna neena liñu li taamu ci doomi soxna diko ko taamu ci nit ku bax di ko taamu ci nit ku baax nee na alhamdulilahi rabbil alamin sunu borom def na ci moom sëriñ xaadim mbàkke mii mu sëñ Modaw Balla jàng ci lu wér. nee na mooy jàng ci lu wér. xam la nga jàng. xam la nga jàng. di ko jëfe di ko di jaamu yàlla. sëriñ bi nee na loolu sunu borom jagleel na ko sëriñ Xaadim Mbàkke sëñ Modaw Balla mi toog. sëriñ Mouhamadou Mafos nee na sëriñ Xaadim mii jëmm la joo xam ne. fonk na ak taalibe lool. fonk na ak taalibe fu mu gis dara maam foog maam foog fa dara. nee fu mu gis dara. mbaa mu foog fa dara nee na na ngeen góorgóorlu bu baax jàpp seen diine jàpp seenu taalibe jàpp seen ngor te nangoo liggéey te jàpp seen njàmbur jërë ngeen jëf